taalibe yi noo ngi leen di nuyu bu baax eh, ci eh, daayira Touba Dakar Dem Dikk moo leen di nuyu di leen siyaar jëwriñ ji di Serigne Ngom eh, ànd koog waajuram di soxna Fatou Diop mi nga xam ne moom moo leen jiite ñoom ñëpp macha allah te it ñëpp xam ko ci liggéey bi xam ko ci ak pastéefam ak ak njàmbaaram ca sotoraak ba ci dem dëkk gi loolee tey liggéey boobu la ñu indiwaat mu laxasay waat ànd ko bokk taalibe yëpp. Ah, wax dëgg yàlla suñu xol sedd na ci moom ndax euh, na mu nu uufe woon te sotoraak ba nii dara dañu ci mu ngi laxasaayu ànd ak ñun ci liggéey bi di ci def kem te layal kàttanam moo nu ci jiite sax ñun ñëpp wax dëgg yàlla ah, di ko ñaanal euh, lu mu mën ren yàlla mën a def mu mën ko law déwén euh, ndax taxawaayam rafet na moo ñi mu ko àndal ñëpp wax dëgg yàlla sunu xol sedd na ndax daanaka moom mooy kilifa gi wax ji sax mën naa wax lépp macha allah ndax yàgg na koo taxawee yàgg na koo taxawee ah tey nag nu ànd ak moom gunge ko eh, ci turu daayira Touba Dakar Dem Dikk yëpp eh, di leen jërëjëfal di ñaan sa borom liggéey bi seen sëriñ Touba nangu ko ci barke borom Touba lépp luñ ci eh, njortu rek te yéene ko ci yàlla nañ sa borom def lu kawe suñu njort moom mii tamit yàlla may ko fan gudd lool wàllu ko wér ba mu mën di taxawee liggéey bi fu ñu toll ki soxna si kii ñu koy indi fi moom it ñu yàgg ko fi fekk ak taalibe yëpp sa borom defal lu xéewal defal nu yokkute defal nu saadate daaray ni ma ak faaya ñu ngi jéggalu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. soppee soxna Diarra bu soo daayira Dakar dem dikk siyaar ak nuyoo ah daanaka jër woon sax may wax ndax jëwriñ Serigne Ngom bu waxee rek mel na wax na lépp ah di santaat yàlla bu baax nag di sant soxna Sooda Xuma mi nga xam ne moo nu ci boole ak ñi mu àndal ak soxna Nene Fall mi nga xam ne chaque jour moom la indi sunu añ bi ñoo ngi leen di sant ñoom ñëpp. di sant soxna yi nga xam ne ñoom laa àndaloon ca Sotrac ba ci daayira Dakar dem dikk maa ngi leen di sant bu baax di sant sama doom yi ma àndal bu baax a baax di ñaan yàlla liggéey bi bu déwénee jëwriñ Serigne Ngom yàlla na romb nii ñu nga xam ne moom lañ ko fi indee ci barke Serigne Touba Mbacke maa ngi ñi siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaanal sama doom yu góor yëpp yi nga xam ne ñoo nekk dem dikk di ñaanal sama njaboot gee itam yàlla guddal seenu fan may leen wér ak wér la ci barke Serigne Touba su ma limee rek damay juum baax neen soxna Soda kontaan naa bu baax a baax a baax jëwrin Ngom maa ngi lay wax loo xam ni dama koy gën a dolli di waxaat rek liggéey sëñ Touba amul dellu ginnaaw te itam bi fi soxna Soda indeeg léegi yàggul waaye wér te wóor mooy kontaan na ci moom macha allah macha allah soxna Soda jërëjëfati jërë ngeen jëf yéen ñëpp. waaw di man moom sama kàddu di ci bari xanaa direk jottali ngërëm ak cant li jóge ci soxna Soda ndaxte wax dëgg yàlla. bis bi biñ ko préparer wax yëf yi yàggul dara te jamono metti na marché bi ku ne xam na ne marché bi naqari na màggal la ñu jóge barki Dembo Ndiaye donc Pastef moo waral lii tey Fatou Diop indi fi indi ko fi muy wax dëgg yàlla ñëpp a ko gisandoo ndab yu rafet lool ndab yu fees lool ndab yu bari lool wax dëgg yàlla soxna si mi ngi leen ciy sant di leen gërëm waaye waaye daari euh, Dakar Dem Dikk dañoo yemu rek ci togg benn mais ñu ñu fi indil benn wax dëgg yàlla barki démb ba tey mën naa ne mi ngi assuré barki démb ba tey lépp loo xam ne war na ko fee taxawee mi ngi ko fii taxawee mel na ne ku fi nekkoon ay ati at moo raw ñu fi nekkoon bu yàgg waaye nag dañ leen di wëlbatiku rek di leen euh, sant waaye di leen ñaanal di ñaan li ñuy def yàlla nañ ci dajeeg ngërëmal sëriñ bi ndax loo xam ne sëñ Mountakha fa mu toog bañu ko ne bis bi kat dañ koy puus ndax dafa jege loolu màggal gi dafa ne déedéet bés bi kenn du ko puus kenn du ko puus bës bi bés la màggal gi bés la donc nañ koy taxawee na ko sëñ bi bëggee nañ ko ni taxawee wax dëgg yàlla donc yàlla nañ ci dajee ngërëmal sëñ bi lépp loo xam ne ñu ko ciy def kenn ku ci ne sa ñaq la ko ci def ak sa doole yàlla na nga ci am ngërëmal sëriñ bi yàlla na baawaan saawaan ci njaboot gi yëpp di wëlbatiku ne di gërëm waa daayira bi yëpp ndax soxna Faat Diop jàmbaar la am na pasteef waaye xe waa daayira bi ñoo ci jàpp yéen a ci jàpp topp ci ginnaawam ndax jëwrin lu mu lu mu pasteef pasteefu amaana bu kenn toppul woon ci ginnaawam du deme nii kon nag ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen wan di xamal ne soxna si mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax mi ngi gis bu baax a baax seen liggéey ni ko soxna euh, Faat Diop waxee fële la daan yóbbu mais ba mu daan yóbbu ñooñu ne ko ah soxna Dakar dem dikk de daayira bu bees bii li fi indi daanaka wax dëgg yàlla ah euh, kawe na njort mu ne ma déedéet kon nag soxna Fat Diop nee ne ne indi fii bu indee fii ñu koy ma di ko teg bët boobaak tayit nii rek la ko faat Diop jàppe kon nag li ngay def daal Fat Diop di ko def yàgg sa daayira di ko def waa dakaar waa Touba dem dikk yal na ngeen ci dajee ngërëmal sëriñ bi lépp loo xam ne yéen a ngi koy wut di ko sàkku ci yoon wi yàlla nañ leen ko yàlla na leen ko yàlla sunu borom may ngeen dund ba njaboot gi di leen ci aw ngeen dund ba njaboot gi kenn ku ne di yeew nagam di jiital di andi jërëjëf